asalaamaaleykum mbokki internet yi asalaamaaleykum yéen ñi seetaan seen site internet mourides point info man Soxna Gaye maa leen nuyu di leen ziar di leen présenté seen émission bu bees tàq ñu naan ko yoonu ndaw yoonu ndaw nag suñ ko waxee liñ si mën a jànge bari na ndax suñu kilifa diine yi suñu kilifa aada yi suñu ministre yi suñu président yi ñëpp si ndaw la ñu jaar ba ci garab sax balaa doon mag dafa jaar si ndaw ba pare ba tax na dama leen di jox dig daje si ay bis yi ñu jëm ci seen émission yoonu ndaw ci seen site internet mourides point info